waaw man ne dama fa amoon rendez tey fii si orthopédie bi ak suma jabar dafa fracturé depuis lors bon rendez-vous bi ñu ko joxee léegi ça fait presque trente jours ma ñëw tey bi ma ñëwee ñu ni ma rendez-vous tey dañu nekk en grève léegi defalaat ma rendez-vous le 13 juin ci koo xamante ni dafa fracturé depuis presque un mois et demi tey la waroon def rajo bi ñu ñu joxaat ñu rendez-vous le comment dirais le 30 juin loolu fan lañ ko teg ñun ñoom bu ñu amee problème pop kii lañ amal problème comment dirais-je état bi lañ mais ñun population bi waruñu subir les conséquences dañu war a faj wala problème ñoom ñi ngi def seen lu ñu weng waxatuñu ñu nekk si enquête mais duñu taxaw wala ñu xeexe neneen mais Sénégal mooy dëkk boo xamante ni lu leen neex def pour quelle raison mais war nañoo xool sax population bu ñëwee war nañ leen a faj parce que population bi tey actuellement ni ñoom ñoo war a subir les conséquences pour quelle raison fan lañ ko teg fan lañ ko teg léegi bon ah léegi nag bon comme noonu la demee man ma saisir leen bi ma leen saisir ñëw wax li nga xamante ni moom moo ñu metti li ñu metti ñu wax leen ko état bi jël ci ay responsabilités am parce que ñun tamit ñun defuñu dara. defuñu dara ñun population bi la amuñu len loo xam ne def nañ ko amuñu lenn loo xam ne def nañ ko. Euh, à l'orthopédie avec le médecin à ma plus grande surprise quand je me suis venu ici j'ai trouvé que euh, les médecins sont en grève pour quelle raison pour quelle raison nous sommes les populations nous c'est nous qui va subir les conséquences c'est pour quelle raison mais si nous avons problèmes avec l'État nous les populations Ça ne nous regarde même pas. Ce n'est pas normal, c'est pas normal. C'est pourquoi on, on, est venu aussi devant les journalistes pour, leur dire que notre mécontentement. Bien sûr, j'avais un malade. C'est ma femme qui a eu une fracture depuis lors, presque un, un, mois et demi. Aujourd'hui, elle, doit venir ici pour faire un radio. Bon, donc, il nous a donné un rendez-vous le 13 juin. Pour quelle raison Le 13 juin. Quelqu'un qui a, des, il a une, une fracture. Pour quelle raison Une